Euh, mbokk yi internet yi di leen di leen fàttale rek jàpp leen bu baax a baax suñu chaîne bi ndax chaîne bi yéen a ci mën a jàpp yéen ko moom diaspora bi yéen a ko moom Sénégal yéen a ko moom mboolem ñi safoo Tawfekh Production lépp Tawfekh la rek ak mbégte mi ngeen bës cloche bi gis ngeen changement yu bees yi am na yeneen yu ko dàq yu ñëw euh, vraiment ci fan yi ñëw ñu ñëwaat ci loo xam ne xewal na actualité de la semaine ba tey day xaw a nekk en corrélation ak li ñu jógee sànq ci wàllum sécu wàllum évasion yi mais jàpp naa ne lu jëm ci aussi kaaraange manqué na lool aussi euh, mais aussi il faut que ñu am une population boo xam ne bu mature la buy dénoncer parce que faat gi bëri na boom gi bëri na Sénégal xamewuñ ko woon moom ces actes de barbarie ñu nemmeeku euh, munoo toog benn bés ñoo xam ne ñu ne nit dee na boobu nañ nit nit réer na ay fan ngi ñu koy wër gisuñ ko euh, gis nañ ko fee fañ ko fekk dafa faatu dañoo jël dañoo fekk ci moom yaram bi am lu ca manqué ay jëf yoo xamante ni mala yi ci mbedd yi sax kañ la nit mas a dox gëj a dox dajee xaj buy xeex xaj yu njëkk da dañ dem màttan xaj yi xeexatuñ ci mbedd yi xar yi mbëkkanteetuñ ci mbedd yi nag yi mbëkkanteetuñ ci mbedd yi ñoom mala yi yàlla joxul xel sax dañoo am comportement boo xam ne sa yaram day daw mais ay nit njaay ki noppam yori bëtam tudd nit njaay xaw ma sax man nit laa leen mën di wax parce que kii def yëfu nit moom la ñu wooyu je pense tey jii on a une société boo xamante il faut ñu xoolaat doxalin bi mais aussi il faut que éducation bi amaat ci parent il faut ñu yaraat nit ñi éducation bi la ñu raté on a démissionné de nos fonctions de nos missions nous les euh, les parents parce que xamul tax parce que tey jii am na lu bëri li xew ci penc mi ci kër gi lañ ko waroon njëkk la jëndee saafara ko waaye bu ñu toppee mbirum àdduna te la duñ ko ñi ngi naan dépense ba lu may dundalee sañ boot lu may nangam ba lijjantiwoo li nga xam te moom moo war a aar sa njaboot. maintenant li xew ci penc mi yéeme na ay faatu mais ni ñuy dénoncé mais quartier yi fii Sénégal li ko gën a doy waar mooy da ngay gis ku dëkk ak benn nit ci appartement cent ans du ñu xamante wala duñu ñu gisante mais solidarité dimbalante balaa am ni ñuy xamante miinante. mais tey jii le problème qui se pose mooy que chef de quartier yi sax lu dul le certificat de résidence duñ ko def seen quartier yi peut-être ils n'ont pas les ils n'ont moyens amuñu moyens yi mais état bi aussi bu ñu defee délégué de quartier yi ce sont des démembrements de l'état administratif ñi nga xam te ñoom ñoo di les autorités book bokk laa bëgg wax ñi nga xam te peut-être moo xam ci mairie bi la jugee moo xam ba ci àgg ba ci état ba ci préfet donc toutes ces structures là euh, ces entités la dañu bokk ci càmmo gi ci état bi donc war nañ leen jox ay doole euh, euh, dooleel ay doole ni ñu xamee facture yi kii ni ma koy faral di waxee souvent benn weer du dee nga war a fay courant wala ndox facture ñëwul sa te xam nañ kër yëpp am compteur waaw nañu xamee loolu nañ ko xamee noonu nañ ko xamee ba fexe bay di xam kër yi ñan ñoo fa nekk loolu responsabilité délégué de quartier yi lay njëkkee ci un parce que état aussi mënu policier bu nekk mu teg ko sa wet kuy dem mu boole la policier moom kon ban la société la ñuy nekk société boo xam ne foofu tourné gis gendarmerie gis alkaati mais kon mu si baaw donc nit ñi nañuy dénoncé yi délinquant yi ñuy dëkk ci koñ yi ba déggee sànq ma ne yar gi yar gi def ci am solo parce que gis nga ku ci yar sa doom gis nga bu baaxee doomu ñëpp lay doon. na ku ci sa doom baax tekki yaru am liggéey macha allah yiwee jullite ay suñ doom ji tukki woon nga suñ doom ji ñibbisi na ko namm nañ ko suñ doom ji doomu ñëpp nga ñëpp la doomoo parce que sa jikko la dañ koo def ci yow dañu laa ji da am lu ñu ji ci yow jikko dañoo jiitu ci yow def ci lu am solo muy jikko maintenant nag bu yàlla yàlla musulee yoroo sa doom ba ko ci lu mu neex muy naan naka taxawal ko piile ka gersa ka carte njombe bu mu def doomu diw la ñuy wax doo dégg mu ko suñu doom ji xanaa demu diw lañ jàppati fi xanaa doomu diw lañ arrêté fi xanaa doomu diw moo xeexati moo nangam parce que yaa sàggane sa njaboot ba musiba boobu dal la donc loolu ci responsabilité yi kër yi la ci pare maintenant si état bi mais il faut aussi ñu gën a la mooy lay wax sànq suñu force de défense et de sécurité yi gàcce ngàllaama les forces de l'ordre travail dur dur tel durement ba nga xamante très dur ba nga xamante ni vraiment mënoo sax wax la ñuy daj te alors ils sont pas tellement bien motivés te dañ leen war a gën a jox motivation policiers yi dañuy yenn ci naaj bi sonn bay bëgg a dee dañ leen war a jàppale seen xel daal jàngalekat yi dañ leen war a jàppale état liñ ko dénk méttuut état dafa war a fexe ba li bànqaasoo ci moom santé éducation sécurité ñooñu ñoo cay nekk nekk dans de très bonnes conditions loolu bu amee je pense que lu bëri dina mën a dalal xel mais tey ji vraiment il y a beaucoup de choses à déplorer dans notre euh, vraiment sécurité dans ce pays te du woon lu ñu xàmmee ci xar kamu Sénégal te baaxul ci réew vraiment réew bu ñu demee ba tey jii instabilité dafa fa day yàq problème mu euh, vraiment leneen loo xamante jëm na ci mm, wàllum euh, investissement yi parce que investisseur moom du sànni xaalisam fépp foo xamante ni kaaraange amu fa. Euh, ma yaakaar ne kon ñu gën a bàyyiwaat xel bu baax a baax suñu kaaraangi gën a dooleel ñi koy wattu. askan bi di bu ñu gisee njome ci koñ yow fa nga juddoo yaroo fa benn sàmba sugu ngay daw ñëw ci koñ ba bëgg faa semer la terreur bëgg faa yàq bëgg faa gàkkal der ba te en général ñi def musiba yooyu yëpp ci koñ yi dëkkuñ ci koñ yooyu yeneen koñ lañu ñëwee dëkk def luyee fa wala di fa fréquence seen benn gaan dafa musiba fañ dëkk duñ fa mas a def lool nga bëgg ñëw ñu yàq la sab koñ ak fi nga dëkk beneen bi aussi mooy ci jigéen ñi na ma yàlla jéggal ku ci sa bakkan wadde ñu ngi koy massaw ñaaw na mais aussi lenn am na nañuy fexe ba jigéen ñi ñu xoolaat seen comportement day delluwaat ba tey ci éducation de base ak yar bi ndax am na ñu bëri ñoo xam bu ñu leen leereen da nga leen di chantage te di kilifa ci réew mi lu leen jaral jaral na leen ko pour ñu faat ak bàkkan mënoo ci dara te nag lu ci ëpp jigéen ñi dañ koy def dañuy ñëw mais privé lu fa xaw yéen a xam yéen a dem ci néeg tëju def fa seen lu leen neex yéen la assumer vos responsabilités mais da ngeen def la ngeen def. nga def sa musiba caméra nekk sa côté ba filmer nga téye di ko santaas jox ma nangam boo mu joxul nangam koo ko fi def muy kilifa lu mu mën si yow da koy def bul sonn koo fi def muy kilifa lu mu mën si yow da koy def donte on ne cautionne pas ça loolu kenn mënu koo rafetlu ndax yàlla suñu borom may sàkk bakkan doomu aadama kenn fekkewu kon kenn amul droit rey rey du doomu mbindeef bu am droit def ko doomu aadama waaye nit ñi nañu xoolaat joflante bi ci société bi nañu xoolaat comportement yi nañu xoolaat ni ñuy doxale nañu xoolaat jikko yi fexe ba suñu réew mii li fi di ay xar baax li fi maam yi bàyyi woon kilifay diine yi def ko fi kilifay aada yi def ko fi di ay jikko yu valeur yu am solo ngir yàlla li lay war a sóor yi bu ñu topp l' esprit bu ñu topp li nga xam ne moo di euh, lu ñu importé ca biti